Seneinfo International Seneinfo International bonjour dalee na jàmm si li na a fes euh, si xibaar yi euh, deux mille novembre 2023 dañ koy commencé par les échos bi nga xamante ne ñëw na si euh, accident bi nga xamante ne am na fële à la sortie de Keur Massar la sortie 9 en Ndiaga Ndiaye en surnombre fait des dégâts sur l'autoroute bilan bi deux morts et dont un enseignant et 23 blessé ah gravement blessé ah léegi chauffeur bi danañ dafa daw suñu sukkandikoo le bilan risque de salir public yëpp loolu la journal bi xëy xamle ñu des rek si journal bi mu ñëw si match euh, Sénégal bi nga xam ne amalal na ko euh, contre euh, le Togo donc journal bi def ne les Lions ont décevant en coaching nul Edouard Mendy le sauveur donc match boobu nga xamante ne Lions yi joué nañ ko démb journal bi di si ñëwaat nee na les Lions quatre-vingt-dix minutes sans faire un seul accueil. Les Togolais sans aucune star secouent les lions. Aliou Cissé débarque avec un système euh, catastrophique. Donc, euh, euh loolu la journal bi xëy xam ne le soleil moom mu ngi ñëw euh, euh, réforme bi nga xamante ne moom def nañ ko dans le dans les professions des huissiers notaires et greffiers donc le soleil à sa une nee na le processus est entamé donc loolu la journal bi xëy donc nee na en avant projet des réformes majeures rédigé par le ministre de la Justice, euh, garde des Sceaux, reçoit les plaidés potentiaires et les et les notaires. Donc, euh, réforme boobu mu ngi en cours donc le processus est entamé donc journal bi xëy xamal ñu ko tey à sa une Sud Quotidien moom ñëwaat na si euh, gouvernance Macky Sall mu ngi def interroger wu poser question par rapport à son règne waa règne de Macky Sall douze ans d' du pouvoir du président Macky une gouvernance malmenée donc suñu sukkandikoo si journal bi def na gëstu bu yaatu a yaatu si gouvernance Macky Sall pendant douze ans donc euh, mu ngi gëstu euh, ay jàngat yu rëy a rëy par rapport na douze ans donc populaire dañu ñëwaat ci moom moom ñëw na si imam yi nga xamante ne euh, def nañ coalition imam inotable du jokkul dëkk bu ñuy wax jokkul ah, def nañ benn Euh, benn benn benn panel wala benn daje ah, wax un pour sur l'immigration l'immigration clandestine parce que nee nañu immigration clandestine defa laal euh, euh, ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo yeewoo foofu su jokkul donc notable yi daal def nañ daje pour vraiment wax si phénomène boobu nga xamante ne moom mooy immigration clandestine ñu des rek si journal bi bu ñëw si Macky Sall Macky Sall moom il s'est nee na si sur la présidentielle ah nee na premier tour deuxième tour c'est choix du peuple donc pour Macky Sall que ñu fal ko ko ñu ko ñu ñàkk ko que mu dem premier tour wala mu dem deuxième tour loolu ci sénégalais lay àddoo. donc Walfran ñëw ci prix des médicaments ñu na ça euh, bon une hausse donc euh, xam naa ne peut-être ci kanam tuuti mën nañu euh, seetlu wala mën nañu gis ah une hausse des prix des médicaments donc loolu la journal Walf quotidien xëy fesal à à donc ñu ñëwaat rek si journal bi mu ñëw rek moom mooy mondial 2026 euh, Togo Sénégal euh, deuxième journée donc Cissé se se perd et en pointe donc loolu la journal bi xëy xamle comme yeneen quotidien yi rek euh, match bi nga xamante ne opposé na Sénégal Togo mu nekk match boo xamante ne Sénégal def si ñàkk. ñëw si alerte quotidien journal bi xëy partenariat bi nga xamante ne moom la waa ministère ah, ministère de la microfinance am ak waa LISCA donc ça une nee na de convention entre le ministère le MMSS et la de subvention aux femmes vivant avec le cancer donc euh, journal bi rek nee na à travers cette convention Euh, cette signature, à travers cette signature de convention avec la LISCA, nous engageons à accompagner 125 femmes par une subvention qui offre les moyens d'entreprendre, a déclaré le ministre, la ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Donc, loolu la journal bi xëy euh, xamal tey à sa une donc li lañ leen indi loon chers internautes de Sene Info International euh, si lu gën a fës euh, si xibaar yi mercredi 22 novembre 2023 ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax si teewlu bi te di leen ñaanal ñu yendu ci jàmm Sene Info International